képp koo xam ne sa doom ñëw na ci kër gi nga xool ko di nga gis mu yoraat beneen jikko boo xam ne du yaa ko def ci moom muy yar ak teggin ak xam àdduna te loolu ñun ñii di paaraay ñu la waroon te mënuñu ko kon ku ñu ko defal war nañ laa sant delloo la jukkal bu baax a baax a baax a baax ñoo ngi sant bu baax nag dañoo mënul wax waaye kontaan nañ bu baax a baax a baax yal na yàlla yokkaat leen da ngeen yokk ko ci kàttanam yàlla maa ngi wax ci turu ñëpp nag ñu fi teew ak ñu fi teewul dem nañ Magic Land joué nañ kontaan tonton yi tataay ñëpp partagé wu ki mën a woon a xàmmee xale ak mag kenn ku nekk dangaa jël sa ki nga xam ne yaa ko mag jàppee comme sa bopp te loolu nekk na geste bu rafet ñu kontaan ci loolu ndax démb bu nee na mën naa am am na ñoo xam ne am nañ leen naqari wala leen waaye démb ñëpp dañoo fàtte lépp ànd booloo dem passé journée bu neex jóge fa dem parc fo kafre ak leen ñu ñu bari ñu ngi nii bokkuñu woon kër te croix moo ñu boole ba ñu bokk benn néeg bu ñu fanaan di waxtaan di kaf di ree te loolu ku nekk seen kër ku ne mën naa am ka ngay gis Croix-Rouge jeunesse ba Croix-Rouge jeunesse nga koy gis jeunesse bu jot ngoon gi jàng si bu ñu ñëwee li ñu xam mooy kaf ree di commencé si nuyoo bi suñu président Baye Mbaye Sall di ko nuyu di ko sargal bu baax a baax a baax di nuyu suñu EG monsieur Diop wante aussi di nuyu suñu parents d'élèves yi aussi di nuyu aussi suñu responsable waaye tamit di nuyu xale yi ak ñi ma àndaloon ñëpp euh, camarade de la croix bu Mbacké ñoo doon benn camp de li liñ ci jublu woon lépp rek mooy yokk li nga xamante ne mooy xam-xam ak capacité xale di jàng mais aussi dafa war yenn yoo xam ne ak yenn yoo xam ne xamuñu ko duñ koy fréquenter comme ci mel ne démb deux ñu ngi demoon fi nga xamante ne mooy Dakar à Magic bay boo ñu ne ñu bëree bëri ba si yenn si ay tonton sax am na ñoo xam ne mosuñu fa woon dem te ñu ngi découvrir ak xale yi macha allah te aussi maa ngi rafet bu baax a baax a baax aussi di passage à l'occasion di nuyuwaale suñu tonton Demba ak tata Sagna mi nga xam ne ñu ngi jógee ba Saint-Louis surtout tonton Demba lépp lu Mbacke organisé surtout camaraderie mu ci biir. camaraderie dafa am lu muy def ci xale. Mhm. Euh, ngeen leen di formé fii lan ngeen di mottali ci ñoom. waaw xale yi ñu ngi mottali ci ñoom seen côté éducation maanaam seen jàng. si yoon xale bu nga xamante ne amooloo moyen waroo woon ñëw fii camaraderie Croix de jeunesse wala koo xam ne par exemple yaa doon am moyen 10 boo ñëwee di am 9 wala 8 rek ñun dañ laa war a xoolaat maanaam duñ ne dàkk mais dañoo war a xoolaat yow naka nga mën a def ba nga xamante ne say moyen dafay gën di yokk donte aussi yaa am moyen yu baax aussi fii si biir am na ñi nga xamante ne duñ ay prof sax mais quand am nañ supériorité si seenum njàng dañuy jàpp si seen jàng bu baax a baax a baax. ndax da ngeen waaw dañ leen di jàngal dañuy wax ne Seckloum junior mooy sànq li nga gisoon fii ñu ko doon def euh, dafa am na lu mu yem si ñoom moo tax ñu tuddee ko Seckloum junior neen jàngal lu bëree bare bëri lu ñuy xeetalee nit bu tollee ci jafe-jafe ak fañ fay yem ba nga xamante ne am nañ fukki at ak juróom-ñett ñu complété ko parce que xale bi mu ngi war a ñëw Croix-Rouge jeunesse bu amee 6 ans ba 17 ans jëm 18 ans soo ko def nag formation complète muy sécurité diplômé waaye li may ñaan ah. parents yi mooy macha allah d'abord dama leen sant leen gërëm ba pare ndax yombul ngay bàyyi say doom muy dem ndax bu dee ku xamul rek du comprendre lan mooy camaraderie Croix-Rouge jeunesse mais teewut comprendre nañu seen xal seen doom yi fu ñu leen soxlayee suba ak ngoon bu dégg ba teg dañuy am disponibilité bàyyi xale ñu ànd ak ñoom ndax boobu ba tey ñu naa di leen gën a ñaax nag ñuy gën di xool seen i doom si lu ñu nekk surtout bu ñu amee lu mel ne cérémonie yi de ñu xool durant ces yooyu seen doom lan lañ ci jàngat ak lan lañ ci xam da ciy am solo lool lool lool. comme ni ko waxee euh, thème bi da koo wax mooy camaraderie c'est un maillon fort du mouvement de la Croix-Rouge ou de la euh, du croissant mooy pàcc la boo xam te ne bii dafa bokk pàcc am solo wala bokk mooy fondement bi wala mooy fi ñuy suuxate wala fi xele bi bu ëllëg su génnee fii foo mën a dem mën faa nekk nekk un bon élément de la Croix-Rouge kon boobu camaraderie su amee ci kuréel gu tudd Croix-Rouge euh, war na muy def yu activité mel nii waaye daal ci tënk mooy pàcc la waxtu bi dafa ne ci biir su fa rek ëllëg doo am secours yi su fa matee nag jaar ci yoon su ëllëgee nga am secours yi ngay wut ci askan wi wala ci Sénégal. bien sûr parce que déjà élément bi jaar ko si gënal génn ba am 18 ans def secourisme ba nekk secouriste nekk volontaire ëllëg su nekk ci comité sax. day wutee ki nga xam ne dafa xëy xëy rek ñu am bokk ci xam daray croix rouge duñ bokk ci xam notion yi secourisme duñ bokk ci xam euh, vie d'équipe ak d'esprit ak solidarité wala mouvement jeunesse sax duñ ko bokkule kon ki jaar jeunesse croix rouge bu mën a tolloo mukk ki nga xam ne jaaru fa ñëw dafa tàbbi si croix kon déjà mayo la bu fort wala boog c'est le plus bon maillon ou plus grand maillon du mouvement de la croix rouge ou du croissant day mottali éducation day mottali mais day mottali l'intelligence ci les travaux manuels day li ci nit ki ci loisir ci mottali ko ci la nekkan ci moom ci kersa ak yambarte euh, dañ kon daal day gën a tabax xale bi la ko mankoon ci kër ga waajur mënu ko def ci moom moom moo koy mottali moo lay dugal gën a sociable mooy kër ga da ngaa xaman beru xam wéet xam yooyu moo lay dugal ba ëllëg foo nem ci nit di nga ko mën nekk moom waaye sa morom moo gis mën koo def comme sew kooku liggéeyu jeunesse Croix-Rouge euh, yaatu na nag mais ci fii ci nun xale bi dañ ne su ñu ba mën a dugg école rek maanaam 6 ans mën naa dugg jeunesse mën naa dugg camaraderie mën na faa nekk ñu jàngal ko mu ay étape nag la fay foofu day franchir ay étape ba muy am 18 ans mën faa génn nag nekk si course comme yow ni nga ko nekkee comme ni ma ko nekkee ni ko keneen nekkee ba ëllëg mën naa jiite ci instance yi gën a kawe ci Croix-Rouge sénégalaise parce que da koo xam ci fàttali rek président yi fi jaar muy président Diallo Diarna jeunesse euh, sunu présidente Diarna jeunesse ñu bëree baree bare tey nekk ci autant kii intense yi danoo jaar jeunesse Cambérène ñoo ñooy gën a xam croix rouge ñooy gën a miin lan mooy réalité croix rouge euh, kon xale bi am 6 ans ba 18 ans da ciy dokk ci ay étapes yu wute waaw li ñaax parents yi mooy que ne d' abord ñi fi seen doom nekk d' abord ñu xam ne teg nañ seen i doom fu wóor ñuy fi jaar leen nimeku di xool seen doom ci lu nekk su waa Croix Rouge woote tee ñu ñëw teew su duñ laajee dara ñu def fa seenu ñaq di teew ci ndaje yu mel nii benn loolu laa leen sant ak di saytu itam ba suñu gisee xale bi ju defee neneen nu bokkut ak ni ko Croix Rouge jàngale ci kër ga mu ñëw wax ko tataay yi ba tataay mën koo jubbanti wala tonton yi ñi nga xam ne seen doom jot ñu fee ñëw li leen di wax mooy nanu fexee ñëw ah, indi ci Croix Rouge comme ni ñu ko yóbboo ci école ba ah, obligation la ci parent bi su dugalee doomam école moo wala jardin da ko war a dugal ci institution yu mel ni jeunesse croix rouge pour mu mottali ko encadrement ci éducation ci discipline ci la vie sociale ci les travaux pratiques ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon da ko war a mottali si ci biir croix kon képp koo xam ne parent nga ci département bi maa ngi lay soññ di la ñaax nga ñëw approché croix rouge jeunesse indi doom ak nu man di mel dinañ ko def li gën ci moom la nekkan ci moom ci lu gën dañ koy yokk li nekkan moom ci lu gënut ci loo xam ne dañ ko war a